ci waxtu bi ñuy waajal di waajal waxtu tabaski am ay wareef dale ko ci yàlla mi ci àddu ak yonentam bi nan la doxe ci sunna moom tabaski tabaski sababam mu jëw ci suñu maam yonti yàlla ibrahim maam la ci xeet wi am bàyyi la sax amul umma la moom la yàlla doon nattoo loo xam ne lu bokk ci ni yàlla nattoo yi nitam ci boppam ba xam ñoom nan la yàlla toll ci ñoom loolu it day dem ba du doom ñoom sax moo tax yàlla def ko yàlla da koy def ngir mu wéy ci xeet bi nga xam ne ñoom ñi ñu ni am may bu leen yàlla defal ak xol yu leen yàlla may ñooy woon nit ñi te nit ñi war nañu am fu ñuy jël exemple pour li yàlla jar mooy sabab ci boo xamee mooy sababu li tabaski bi und ndax loo gis dafa am max naa ndax bi mu demee ba yàlla la nattoo ko euh, digal ko pour mu rey doomam moom dafa oor doom bi ginnaaw ba mu leeree ko ne lii yàlla la dafa oor doom bi naka yow suma doom yàlla daf ma digal ma rendi la mu ne doom bi it naka defal li la yàlla digal dinga fekk ma doon it ku ko mën a muñ ba mu jubloo ci nag def ndigal ba seytaane jógoon na it ndax yàlla wane na ci ne seytaane du masa bàyyi ku jëm ci moom ku jëm ci moom ku nekk moom yàlla seytaane daf ca wane ne du ko masa ba muy foofu tam dafa am max naa lu tax mu ne seytaane ko doon jéem a gàllankoor ca rendi ba pour mu am lu muy xalaat ba ndigal bi mu ñàkk koo mën a def dem na fexel doom ji pour mu lànk fexel na yaay xale bi pour mu lànk loolu mooy indi ñu ne sax ñetti jamre yi ñuy sànni seytaane dox na yoon pour yàq ndigalu yàlla bi ci moom seytaane nag comme ndigal moo ko gaañ ñu bàyyi xel ne bàyyi ndigalu yàlla day gaañ jaam ndax seytaane dañ ko sant ndigal defu ko moo taxit ndigal booba ni mu rëbbe doomu aadama bokk na ca keroog ba muy bëgg a yàqal Ibrahima ci ndigal boobu ko yàlla sant woon ci rendi doomam si am na nag ay wax yu ci am ba mat na leeral mooy bu rendi woon doom ja kon ku ne tey sa doom ngay tëbaskee loolu nekkul loolu tam mat na leeral ndax newul yàlla bu natt jaamam da koy seet ci li tax mu dikka natt moo koy xam ginnaaw ab yonente exemple yu nit ñi lay doon am na fu yàlla jaar ak moom waaye loola ko yàlla sant bu yeggoon nit du tax ñuy rey nit déedéet yàlla bindul nit ngir mu màgg ñu koy rey na ndigal yàlla la woon ci Ibrahima déedéet yàlla dafa def rekk nattoom wala xat karam naa bànne aadama la giñ na ne moo tëral doom aadama kon duutul mën a nekk ndigal booba ñu naan bu reyoon doom ba tey jii ku ne dangay tabaskee sa doom ngay rey déedéet loolu bokku ca li ci bokk daal mooy yàllaay nattoo noonuy jaamam bari na ci ay yonent yi mu seetlu Ibrahima daf ca bokk nag ak nooxin ak Moussa ak Ibra ak Insa ba mu tudde leen ulul asmi way dogu ñi kon am na lu sabab seen tur bi waaw ndax ku si nekk am na fu yàlla jaar ak yow Ibrahima nag fii la yàlla jaar ak moom bon loolooy sabab ba ba mu sottee nag yàlla defal na ko yonent bi ak pàttali fàttaliku lu mag lu jar a fàttaliku la parce que lu mag lu jar a fàttaliku mooy ndigal ba yàlla sant woon nit doom boo xam ne bi mu juddoo kontaru la doonul ku bon ku baax ku lewet ku la déggal di góor encore moom amoon na lu mat juróom-ñetti fukki at amul doom mm-hmm. nga am doom dellu muy góor te léeg-léeg nga yàlla bëggale leen nee na jigéen gis ngeen am mer maanaam mer mu ngeen di nëbb waaye da ngeen da mel ni ku naan yàlla te kon mu ne góor yàlla xam na loolu wax ko ci alxuraan waaw kon bu ko mee doom bu góor seetlu loolu dellu juróom-ñetti fukki at nga door am doom doom ba doon doom bu góor ñe ñetteel ba doom bi kontoru la mm-hmm. kon bu ñu la nee na ngeen set bobu dayo lepp dafa nek lo xamne lu jafé la bon ki ci yalla digal mu ray domo muy exemple xet bi te yow sa dom kenn reyulu ko waye bu bes bi jotté nga bayika ka mu organiser ay bal di moy yalla ak nawlem ñu ay moroomam est-ce que sa xel yow momu jur dom ji bo mu mag dem na ci Ibrahima ak dafa bari lu yàlla wàcc ci alxuraan la mu cay jàngale day bari mhm. ñi cay dugg te duñ ko waxtaane ndax max naaya lañ dul xam mhm. moo tax am ca njariñ day xaw a jafe mhm. nañu seetlu loolu ba tax yàlla sax ci alxuraan mu ngi naan lan yanaalu laaha luhumaha wala dimaawuha walakin yanaaluha taqwa minkum nee na yitteelul yàlla yàppa wa yitteelu ko deret ja li ko yitteel ci yéen mooy ragal yàlla boobu ngay dégge max naa yi may expliqué léegi aaya boobu moo la koy wax nee na li ko yitteel mooy ragal yàlla yàggal yàlla nag dafa bokk ci Ibrahima dañ ko digal lu jafe lu bokkul sax ci islaam doon loo xam ne daggit la ci nit mu mu taxaw ne yàllaa wax doom ja nangu comme na baay ba nangule yàlla la ko doom bi nangule kon yàgg sa doom waru leen a ànd nangul yàlla bu boobaa nag dangay seet koon la waral yàlla ne deret jakoon yitteelu ko yàppa woy yitteelu ko ragal yàlla gi ci yéen moo yitteel léegi noonu la tabaski bi jaare ci Ibrahima yàlla jàngale fa daal moom digal bi bu la ko joxee ngay jaam xam nga ñun ay julli woor def lii bàyyi li waaye boo xoolee jël doom boo jur deful dara bonul weddiw la da nga yonente yàlla yàlla seet doom booba na rey ko nañu seet lu loolu di peese lu muy balaase loolu dafa peese lu rëy luy indi na ñun xaajub xaaju loolu yàlla waxuñu ko mm-hmm. ñun nag li ñu yàlla wax gën a oyof fopp te mënuñu ko def bon lu tabaski bi di max naam lu muy jariñ jullit bu xam ne bés bi jot na tey nga jënd xar rey feetoog sa njaboot yendu ci sax na nga seet na yàlla génn na ca lekk ba génn na ca naan ba yàlla nga ca ragal yàlla ka ci ni mu ko waxee ci aaya bi bon day mel ni léegi si tabaski am nga ci tegtal mais la la ca yàlla teg muy wéy mooy ragal yàlla moo tax ci julli ci koor ci asaka ci dem màkk yëpp yàlla dafa wax ne ak ragal yàlla mooy mottali loolu kon daanaka diina bu yàlla gërëm ci nit mooy bu yàlla diglee mu def bu teree mu bàyyi mooy diina bu yàlla digal nit bu diglee nga def bu teree nga bax loola dafa bokk ci lu ñuy mën a jàpp ci tabaski ci itam kuy ma moo gën ndaxte kuy la yàlla joxoon euh, euh, ibraay ma mm-hmm. nu mu ko joxe nag mooy nekk nañ ci yitte bu yéeme ba ñu xëyee mm-hmm. muy waajtaayu rend doom bi doom bi wax ko bàyyi takkal sumay takkal say bët ndax yërmande bi na ci way juróom yooyu mu takk bëtam nag daas paakaam ba xam ne paaka bi ñëw na bu baax ci kaw lu tollook xalaati nit te ñu bari am na yu ñuy wax léeg-léeg day jéggi nit dégg ba day naqari mm-hmm. waaye dafa ko daas na ko daal ba paaka ba wóor ko ne ñëw na bu dee dagg rek mën na dagg mm-hmm. ci jamono boobu nag yàlla xam ne dogu na doom ji dogu na falama aslama wa tallahu lil jabin ba nga xamee ne dogu nañu ba mu tàmbali jublu ci rey ba wala yàlla sant jibril mu wàcce benn xar xar ba nag dafa nekk kuuy moo tax awalu li ñuy jëkk euh, li ñuy jëkk a taamu euh, booy tabaski na nekk kuuy ndax kuuy la woon kuuy ma benn la Ibrahima ba mu ñëwee yàlla jox ko ci ndigal ba ba mu ñëwee fekk na dafa tëral doom bi di rey euh, takk nay bëtam ba muy rendi la jibril ñëw rocc xale bi dawal xar mi tëral xar mi mu rendi dindi bët gis xar lañu rey mu ne allahu akbar mu tudd yàlla doom jitam tam tudd yàlla mu yëg ne yàlla moo jot xale bi ci xar ma mu indi ñu jox ko ndigal it nekk nag kii xar la comme nag yàlla jot na la ndax li mu la sante woon dogu nga sa doom dogu na kon naka ca soxol mooy bu doon bàyyi na la dina am bon nag moo nangu sa euh, moo nangu ne yow doxal nga ndigal bu mat sëkk yaag sa doom li mu ko nangoo nag mooy jote na ko xar bi xar ba nag mu def ko nag comme ndigal bi mat na te dogu na doom ji dogu na xar ma mu jote moom la ko defal feet moo indi feeti tabaski idul adqa moo indi idul adqa parce que da ka di defal feet bu teew ndax xar la ren bi mu wëlbati ko naka lekk ko yàq sa njaboot lii la gëm nag way gëm ñi moo tax ba fi ñu toll nii te bés ki boo rendee nit jóge fële moom ku mën a doon doonte du jullit danga koy bàyyi mu xewlu bu ko dàq waaye nag du yoon nga dagg ci xarma naa lu tax mooy booba mu mu noppee yaa daf ko ne nanga ka lekk ak way gëm ñi te kàddu goo ko yàlla jox moom la moom la jàpp moom la doon def ndax da bokk ci ndigal ya tax mu bëgg a rendi noonu la ndigalu yàlla yi ci lu la jox demee ba foofu walu la jox ndigal nag nga dem ba sa kanam ngay baaxamtal sa xel ci biir loolu ñu ngi ne boo matee mesure rek war ngaa mën a rendi noo toll war nga mën a tëbaski est-ce que tëbaski kenn ku ne danga nga war a tëbaski wala kër gi famille bi bu ci kilifa gi rendee rek mel na ni ñëpp tabaski na. waat euh, ki kilifa gi bu amee xar am ay soxna ami doom. Mhm. benn xar bi doy na. Mhm. mu yéene ci njabootam. Mhm. yëpp mais bu fekkee tam am na ko mëseur te am lu mu tabaskee. muy jabar sax. muy doom. bu leen euh, bu boobaa ñoom mën nañoo jënd seen tabaski ñoom it def feet ndax mësoor nañu mhm. am nañ ko waaye am nañu mësoor amuñu ko mhm. te yaa leen jur amit soxna yoo man amuñu ko mhm. ñooñu ñëpp benn xar bi ci yërmande yàlla ak yaatoom andi na boo ko reyee njaboot gi rekk day mat waaw loolu day nekk incha allah macha allah loolu lañ soxla woon mm. ci préparation tabaski di ci waxtaan ak ñi nga xam ne dañoo réeri tabaski jullit yi nga xam ne tamit euh, dañuy dégg tabaski rek xamuñu nu mu demee mm-hmm. maanaam bi nga xam ne moo waral tabaski euh, suñu ustaas sunu papa Omar Cissé defe naa leeral ñu ci lu bari mm-hmm. ci wàllu fi nga xam ne moo di sunu maam Ibrahima mm-hmm. euh, ni mu def ba ba xar ma ñu daw indi ko mu doon xar indi feetu tabaski ci wàllu tamit euh, ragal yàlla bi nga xam ne moom rek moo soxi soxal yàlla mm-hmm. li ko soxal ci tabaski mooy ragal ka waaye nee na du yàpp bi tamit du xar ba mm-hmm. euh, beneen bi tamit nee na boo mesuré te man ko man ngoo rendi ndax ñu ci bëri dañu foog ne boo mesuré boo ko mënee boo ko mënul rek war ngaa mën a rendi ba tax na ñu ci bëri ñu ngi jël yëfu jàmbur di ko tabaskee la ana lan la ci lislaam wax te moomuñu ko ak di leb mm-hmm. xam nga ki ko amul moom wàcc na ko mhm. waaw let bi sax santuñu ko kenn mhm. su fekkee nag danga am loo xam ne yaakaar yaakaarlu na lool te mu jot mhm. man nga jël ndax lépp bor ci diine la bokk man na nekk yàlla tudd na ko wax na ko si bokk na lu nit mën a def waaye tam teg ko ci kaw wóor nga ne li nga lépp danga koy fay mhm. ndax kenn du jaamu yàlla ba pare ñimeñ yàlla mhm. te ku fas kéenawul fay bor mhm. danga moyaat yàlla te waroo jaamu di moy bon bu la wóoree ne maa ngi jël de waaye man dañ ma koy tiire par loolu bor la waaye xam nga ne lu bor bu wér la ndax il faut nga delloo ko soo ko jëlee ci nit it wóor nga ne am na yaakaar bu tax nga jël ko danga ko koy delloo bu dul loolu tabaski bi danga koy ñàkk ndax danga ko teg ci lu yàlla bañ mooy mm-hmm. yàlla dafa ne ragal yàlla ba moo ko yitteel mm-hmm. te bañ fay bor nag mm-hmm. ci ñimeñ yàlla la su boobaa bu mu la jaral jël loo xam ne naroo ko fay da nga am yàpp rek feetu comme nit ñi waaye amoo tabaski waaw parce que teguloo ko ci ndigal yàlla ah, te ki nga xam ne dafay jël tamit mm. alalu jàmbur ngir tabaski waaw boobu ba tey mooy ñooñu ñëpp boobaa doo am tabaski yàpp rek lay am waaw tabaski boobu am na ay ngëneel mooy li yonente wax boo xee jëm sa jullukaay ba allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar wa illaa alhamdu subhaanallahi allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhaanallahi bukratan wa asila bokk na ci yooyu waaye dañu wax ne kàbbar yooyu ñuy wax nag bésu tabaski bi boo jullee waxtu bu mu mën a doon ba ca ñaareelu bés ba ñetteel ba ba fajaru ñeenteel ba boo jullee suba fajaru ñeenteel ba la kàbbar yi dooru jeex waaye bés bi ñu tabaskee euh, waxtu woo julli rek na kàbbar allahu akbar allahu akbar allahu Ah, allah laa ilaha illallah allah akbar allah akbar walilahi alhamdu allahu akbar akbar allahu akbar mm-hmm. laa ilaha illallahu allahu akbar walilahi alhamdu mm-hmm. boobu boobu boobu mën nga ko eh, sikkare noonu comme ni mu dikkee ci yenn téere yi mm-hmm. nga jël boobu julli tàkk tisbaar ba julli ba tàkkusaan julli ba ba julli bi yëpp daal ba ñetti fan ba ñeenteel bi fan nag xam nga fan mu ngi jeex fajar ndax fajar si la fan tàmbali ci wàllu yàlla <laughs> waaw bu dee tubaab mooy def min wi ci guddi mais bu dee wàllu yàlla fajar la fajar ba fajar mooy vingt-quatre heures ci mm-hmm. yàlla mm-hmm. kon moo tax ba ñetteel ba fan il faut nga demaat ci fajaru ñeenteel ba fan mu mm-hmm. door a mat fan moo indi fajaru ñeenteeli fan ba lay jeex kàbbar yooyu loolu si ngëneelam la bés bi subhanallah bi am lii nee ko di wax baax na ci lool daf lay dimbali ndax moom moom moom la ñuy rafetale feet bi subhanallah bi am moom la ñuy rafetale feet bi subhanallah bi xam bi subhanallah asim dañ ne di leen ko dundale noonu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy bés ba ci boppam waaw te ci li tax mu ne ragal yàlla nag moo moo ci yitteel yàlla mu waxal ko boppam ci alxuraan mooy indi lépp loo xam ne dafa ànd ak mooy yàlla bokkul ci feet ji feet yàlla doo ci mooy yàlla mm-hmm. da nga ciy sàbbaal mm-hmm. da nga ciy tasbix da nga ciy taxliit mm-hmm. da nga ciy taxmiit euh, sàbb yooyu daal moom la ñuy répété la feet bu bokk ci yàlla waaye du nangu nga feetoo ko mooy yàlla loolu na ko ku ne xam lu mu neex neex na dellu ci yàlla loolu moom mooy li yàlla digal yonanta mu bakk fi dénk ko xeetam mm-hmm. ñu war ko di fàttalante mm-hmm. ndax ñuy taxaw ci lu ñuy jariñ li ñu si nar mm-hmm. pertaloo yàlla musal mu ci allahuma salli ala sayyidina muhammadin xayra wala rasul wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima xadditu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam